suñu jafe-jafe dañoo ñëw fii ñu wooñu test ci chinois yi ñu ñëw bàyyi suñuy poste amaana suñuy poste chauffeur ñëw ñu jëlee échantillon à cinquième catégorie B ñu ñëw échantillon yi daanaka mën naa ne carrément lii affaire bi moomu jaam la parce que ñuy fay échantillon une salaire misérable bu ñuy fay échantillon une barème de trois cent cinquante francs par heure on travaille de dix neuf heures trente à dix neuf heures on waaw à sept heures à dix neuf heures ah ça fii loolu esantool ni moo fi jaaruwul beneen point bi ñu xëy démb ci suba ñu niñu comme liggéey amul da ngeen di raxas oto yi yëpp ba mu set yaa ngi ngeen laa ngeen ngeen ngeen nettoyé l'extérieur du véhicule ak l'intérieur du véhicule ak le corps du véhicule yaa ngi te loolu ku xam ni carrément chauffeur jëliñ ko ci boobu noonu bi amee li ñu métti encore instant bu ñu wax ko boy bi suñu benn boy ni ko dax def ko mu bañ ñu yóbbu ko bu ko mise à pied pour dàq ko ñu mobiliser ñu ñëpp la ñuy léegi ñun après ci biir 41 chauffeurs yooyu ñu wax loolu ñu xëy suba seppi si ñun 22 personnes daan ñeen da ñëw signé da ngeen raxas comme ça nii bon nettoyer l'intérieur du véhicule ak l'extérieur du véhicule ak le corps du véhicule ñun leen carrément loolu ñun duñ ko def yaa ngi duñ ko signé ñun ku ko mënta signé nga dem sa léegi nag comme que réew mi am nañu droit dem dem nañu instantané inspection de travail on a saisi moom bi ñu ko Dans ce cas-là, on a rencontré une syndicaliste hein, qui s'appelle un certain Fall. On a discuté ensemble, on a mis notre plainte. Nous avons fait une plainte, plainte en jour. léegi ñun dañu bëgg asantoon ñun bu ñun doomu réew mi la ñun on appelle son excellence monsieur président de la république que mu taxaw ay doomu réewam. léegi ñoom yan lan lan lañ leen waxoon bi ñuy jël ci contrat bi dañoo jël maanaam comme test chauffeur dañu def non pas contrat mais dañuy def test maanaam comme chauffeur bi ñu defee test ñu admis ñu ñu admis ñu ñuy liggéeyloo journalier ñun ñu léegi maanaam liggéey journalier formation une semaine la une semaine bu jeexee après comme ça après ñoom ñu ñu kon ne liggéey une semaine waaw ñu defañ contrat une semaine bi jeex na pare ñu indi comme ça ñu génne semaine bu semaine bi a sorti une fiche fiche yi asantoon nii bon c'est une poignée de 25 jours au lieu de 30 jours fiche yi nii yaa ngi dégg bi ma demee asantoon inspecteur inspection travail wax naa ko ko la ñu jox mun ñu carrément loolu nan mën a nekkee léegi asante wax nañ inspecteur inspecteur mu ñëw na fi laaj leen na liste travailleurs yi ñu ko am ñu liste te fii ci biir asantoon ni asantoon ni base bi y a plus de cent ñu fiy liggéey waaw te kenn am ci contrat yaa ngi déglu te am contrat Bambey am nañu def 4 mois ba 6 mois yoon ten si ci fiche jours la liggéey bu jeexee ñu jox la beneen fiche 25 jours te loolu asantoon ni moom lañu carrément loolu asantoon ni du yoon ci réew mi Bambey seen barème de ñu ngi fay 450 francs par heure ñun ñuy fay 350 francs par heure te fii mooy base bi fii moo coiffé Bambey moo coiffé Diourbel waaw ñun nag bon am suñu permis de conduire yaa ngi à cinquième catégorie A cinquième catégorie B yaa ngi amuñu personnel boo xëyee sa yaay paas sa bopp ñëwal sa bopp yaay lekkal sa bopp yaay naan sa bopp sa xaalis balaa nga jot da nga ci daaw daaw bëgg mi yor sunu njaboot instant di wàcc yóbbu sunu kër li ñu yaakaar fii ñoom ñu exploité. ok mais léegi maintenant euh, tey euh, lu tax lu tax euh, liggéey bi dañ leen arrêté wala yéen dem démb démb ba léegi dañoo xëy bi ñu xëyee sunu benn chauffeur yaa ngi déglu ñu ni ko tey liggéey amul da ngay jël oto bi nga raxas ko kaw ba ci suuf oto bi yëpp mu ne leen man jëlee ma pour rax oto ñu ne ko kaay dem ko ñu bisa payé la léegi bi mu àndee après chinois bi dem un certain monsieur tout ñu ne ko carrément lan la mu wax ñu affaire bi nu mu demee ñu ne ko carrément nañ dem ñu ñëpp bu ñuy licencié ñëpp la ñuy ñoom bi ñu demee après affaire boobu licenciement boobu ñu reculé ci daani licencié wuñu instanton léegi kenn mais dañuy négocier négociation mooy ñu génne instanton trois pages daani article yi moo fu nekk dañu koy signé mën leen ko signé bàyyi bu ngeen xëyee ngeen raxas nettoyé oto bi raxas oto bi yaa ngi extérieur intérieur ak jusqu'à ñun instanton amul fenn parce loolu xaar duñ si dellu gaan parce que loolu boo ci dellu gaan mooy mbuumu jaam te ñu duñ ay jaam parce que loolu loolu loolu loolu waaw ba léegi bi ñu xëyee démb ba léegi pointé wuñu démb pointé léegi ñu xëy léegi bat yi léegi ñu xëy jël bat yi yaa ngi daan dañuy jël bat yi ak jule yi ñu dellu ñu fay ñu dem seen yoon léegi ñu war nañ pour ñu ñoo démissionné ñun leen ñu démissionné dañuy liggéey léegi ñu ne ku bëgg liggéey nga ñëw instantoon d'accord ci loolu ñun leen ñun loo loolu loolu d'accord ñu ci raxas bi mën nañoo liggéey mais d'accord ñu ci xëy raxas oto parce que loolu boo ko d'accordé mooy maanaam buumum jaam te buumum jaam jeex na ci réew mi waaw léegi ñun li ñu bëgg ñun ah son excellence monsieur le président de la république mu taxaw ay doomu réewam xam ne carrément ñun amuñu loolu moom yaa ngi mu taxawuñu ci liggéey bi ñu liggéey fii nii parce que ñu fi nekk daan suñu doole moom bu nee moom dafa bëgg instantoon wàññi comme ça ni semence ah, liggéey moom nañu jàppale ci loolu taxaw taxaw liggéeykat yi parce que moom toujours mën carrément di defaan travailleurs yi man nag ci loolu laa koy woo xam ne carrément ñii autour APH la Touba bi may ñu ko Sénégal c'est des investisseurs dafay ñëw pour investir yaa ngi pour liggéey léegi ñoom xaalis boobu may ñu ko Sénégal comme dañu investir ñoom après jël seen xaalis mu nekk instant une délai ñun dañu koy ñaan comme ça mu taxaw ay doomam réewam ñu taxaw ñu mën a comme ça ne liggéey am nañu gagné yóbbu suñu